sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna tur bi naka la. Youssoufa Diédhiou. d'accord Youssoufa Diédhiou tey ñu ñëw seet si leen gannaaw agression bi nga xamante ni amoon na ñu daal di ci dut baaraamu tuuma seen i ñaari doom yi nga xamante ni ñoo nekk fii gannaaw loolu bi mu amee yow nga nekk koo xamante ni dem nga fa démb ngir seeti leen ca bërëb ba nga xamante ni fa la ñu nekk gannaaw bi nga demee ñoom lan la ñu teg ci say loxo lan lañ la jox comme explication ci li nga xam ne moom moo xew. moo xew bu ma leen demee seeti dem naa fa vendredi noonu ay 15 heures bu jàq di jullee noonu dem naa seeti élage nga xam nga mënoo amandoo ñaari permis pour seetandoo ñoom ñaar ñëpp kenn rek nga mën a seeti ma dama xam ne élage sama gaañ la sama xarit la te yàgg nañ dund man xamee ma ko si yooyu mooy toog ak moom muy muy muy ngay nit di wax si loolu sax da lay évacuer moom bëggul loolu moo tax ma xam ne ñun tooñ nañ doomu jàmbur nag billaa walaay. d'accord gannaaw bi nga demee foofu fa mu nekk démb moom lan la la expliqué ci li nga xam ne moom moo xew. non expliqué ma dara ma ne ko a Hadj nii jaaxle nañ ñëpp jaaxle nañ te li nii nii mooy loolu. d'accord jotuñu wax kon aussi que liñ xam ne moom la koy waxal ay tuuma la wala déet. non na ma man sama jum bopp man yow xam nga ma man El yow jor sax nga ma koy wax yow xamoo lii. gars yi la tuumaal la dugal la fii mais jàppal ne fii kat sumba jun ba mu daj laa kenn toogul ñëpp instant am nañ lu leen métti te gars yi lu ñu def nii xam teguñu ko si yoon teguñu ko si yoon loolu dafa leer. ko demee seeti démb moom naka lay dundee li nga xam ne moo di situation bi aussi. situation bi ni koy dundee dafay metti parce que xamul loolu xamul loolu dañ tooñ doomu jàmbur dugal ko fële te loolu noonu dañ bëgg ñaan yàlla rek te yàlla képp taax gars yi def seen liggéey ñu def seen liggéey nu mu gën a gaaw ñoo xam ne ñun doomu jaamur yi ñuy téye defuñu dara xamuñu sax luy def fii la ñuy liggéey Soumbédioune man mi jo mën naa jox sama bopp exemple fii laa nekkoon maa téewoon damaa doon téye di liggéey. kon daal ñi nga xamante ni moom ñoo doon agressé waa ji ñoom xamuñu ki nga xam ne moom la ñu jàpp tey. ñu doon agressé. waaw non déggoo ma ju ju nduróo day am te jum te tamit day am ton nañ doomu jàmbur daal ton nañ doomu jàmbur man loolu laa am lu leen wax. waaw kon dañu ne ñoom ñaar loolu lañ wax te nduróo day am ñooñu ko leen xam-xam ne liggéey la leen xamee fi la liggéey liggéey guddeeg bëccëg suba ngoon ñun amuñu dimanche lundi ba dimanche dañ koy liggéey chaque jour dañuy liggéey ñun fii lañ xam fi la liggéey fi lañ bu ñu wàccee dañuy ñibbi suñu kër dem sangu ji toog suñu ay xarit. d'accord ndax ñoom c'est la première fois ñu leen di jiiñ mbir mi ni mel wala. déggoolum la mi ngi soog a am ci kaw suuf xamuñu loolu. mooy yoon def liggéey bàyyi xale yi ni mu gën a gaawee mm-hmm. sinon waaw mooy mm-hmm. loolu.